ah alan bikum xalifa général de Tidiane Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nelaw na inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna Le Quotidien yéen a kaay ñu ko xamal atum 1927 la gën a woon adduna ba atum 2017 démbu ci àjjuma ci la làqu way ji boromam ba tax yéen joxe na caabi tijaam yi l'observateur ne tiwaawoon kay chiffre juróom-ñaar yóbbu na seen kilifa yu bari libération ne ki njaboote woon ñëpp wàcc na liggéey ndey sàmm seede gi nag benn la Sénégal yëpp ko bokk wax ne ku doon defar diggante yi la njiit réew mi Macky ci laas yéen na may leen ma defar lu yàqu moo tax président Macky Sall bi mu wàccee aéroport direct la def si du quotidien ma ngay tàggatoo ak Al Amin di ñu fàttali tamit ne yàggul ci xilaafa gi juróom benn weer rek la ci def moo wuutu woon Al Maktoum enquête yéen a kaay na Sénégal ñàkk na ki doon defar diggante wi fexe ba mi dal nekk ci jàmm njiit réew Macky na ko ma yokkal la ci waxal l'islam ci boppam moo ñàkk ponkam bu mag Dakar Times ne vingt et unième waaye na bii dem Sénégal ki ñu wóor woon dem na njiitëra Macky Sall na ko donte yàggu ci gi waaye lim defar tabax ko fi bari na yéen a kaay bi na ko ma yokkal la ci président ku amoon njëriñ la woon ku tabe ah, yor kàddu yoonu murit le soleil yéen a kaay ñu ko xamal lim xamut moom wal fajir yéen a kaay ba tax mu xëy di ko laajte mooy ana kan moo nar a wuutu al amin ca xilaafa ga donte suba ci dimanche ji ci la ñu wax ne la ñu tabb ko nar a remplacer laas yéen a kaay na ko man daal xaw ma kan la waaye am na ñaar ñoo xam ne ñu leen di tudd na ñoo koy remplacer ayaw seet Serigne Mbaye Sy Mansour ak Serigne Sidi Ahmed Sy l'observateur na ko ñoom ñaar ñëpp mën nañ ko remplacer and laas yéen a kaay moo ñu ko xamal tàggat yaram Diafra Sakho ak mbay Niang ñooy taxaw ci attaque bi ngir mbokk kaw weer Serigne Abdou Aziz Sy Al ba tax direct info na neexul ba neexul waaye Sénégal yëpp a ko jooy xanaa ñu ñaanal ko yàlla yokku leeram te taaf ñu ci barkeem waaye ku déglu kàddu yi Al Amin yëkkati woon bi Al Maktoum liggéey ku ko dégg da nga xam ne Al Amin mi ngi doon tàggatoo kàddu yaa ngi noonu. ku dem ba ñu ne yaay wuuti ku fi ñu ne la yaa wuuti ku fi nekkoon. nee nañ la jege nga buntu alaxira. nee nañ la jege nga buntu alaxira. waaye dundal bu bari si